doorate ko rek ak ñi nga xam ne rek ñoom ay acteur fii ci biir réew mi di Sénégal gannaaw jafe-jafe yi nga xam ne rek daal dinay am ki nga xam ne rek moom moo di Dip mën nañ ne nag ñu miin ko lool ci làng gi donte le nag ñu bëree bëri jàppoon rek ñi nga xam ne ñoom ñoo di acteurs yi dañoo toog jàpp seen wante kat gis nañ ñenn ci ñoom di génn di def li nga xam ne rek moo di seeni publication ki nga xam ne rek moom moo sa daal di fees jamono bi ñu toll nii du kenn nag ku dul Dip mi nga xam ne rek daal dinay jot a commencé nag gannaaw ab publication bu nga xam ne rek amal na ko daal di koy door rek nag lii nga xam ne rek moom moo di xeex bu métti bi am fii ci biir réew mi dem nag ba ci di yëgle que ne sax lii lépp rek dafa am loo xam ne moom moo ko waral wante kat blessure yi nga xam ne seetlu na ko ci biir réew mi ak wal fajri gi nga xam ne rek daal di nañu jël li nga xam ne moom moo di licence am ak ray gi nga xam ne rek daal di ne am ni kii démb rawatina nag jigéen gi nga xam ne rek mujj nañ ko daal di dóor dóor yu méttee métti daal di dem ba yegg sax ci euh, kii nga xam ne rek moom moo di benn handicap boo xam ne moom it mën jàppee daal di koy yow fitnaal moom mii di Dip dund Guiss yokk sa nag étudiant bi nga xam ne rek daal di nañ koy faat foofu la UGB moom mii nag yooyu yëpp rek la boole dëxañ ko benn yoon dal di ne katt bu amee gis nañ ne kat état bu Sénégal am na si part de responsabilité rawatina nag ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di tàkk der yi moom mii di Dip nag daal di yëkkati ay kàddoom ne ñoom ñoo ñee ñoo waroon a nekk ñi njëkk ci ñi nga xam ne rek ñoom ñooy sawe ñii di sénégalais yi wante kat lam ne mi ko dafa mel ne rek jéey yi nga xam ne moom mooy am ñoom ñoo ñee mucc sa xaw temm rek aar ñi nga xam ne ñoom ñooy seenu askan wante jamono bii ñu toll nii dafa mel ne contraire ba lañ gis nekkat ñi si ñàkk seen bakkan ñu si bëree bëri mën nañu ci gaz yi ci lañ ñàkk